li nga xamante ne fi ne nii mooy auto transport li muy mën a dugal TVA yi ñuy jënd gasoil yi ñuy fenn impôt yi ñuy fay taxi yi ñuy fay loolu yëpp liggéey doxatul secteur informel moo yor état bu informel bi liggéeyul état day am ay manquement maa ngi dégg son excellence président Macky Abdoulaye Wade moo sa wax ci bés kàddu ne ragalul benn grève ci Sénégal bu dul grève transporteur yi ñu ne ko président loolu mi ne la état di perte ci ci ci ci ci yéen par jour gasoil bi ngeen di jëndee bu ñu xamul état li mu ci gagné maar d'état donc ñun dañu yor économie Sénégal dañ ci nekk rôle bu am importance am na collègues collègue yoo xam ne ñu ngi ci ci rajo yi ils ont les plateaux télé mais gisoo leen fi parce que waxuñ pour njëriñ askan bi bu fekkee da nga yoroon mandat nga dem ba sa mandat jeex depuis 16 ans man mi di wax yow candidat la ci secrétaire général syndicat transport routier déposé naa sama candidature depuis 2017 ñu ngi ci négociation naka la ñuy dem élection ci ay modalités jusqu'à présent génnul

nek ci ay jëwrinam mais dem nañ ba xam fi ne xamatu fu muy teg tànkam ñun nag dañu fas défar transport parce que ci lañu dund ci lañu ñuy euh bu ko sëfay joxé bop dina leer sun kam la né munoo yor syndicat sa mandat jeex nga tok 4 ans munoo def assemblée générale munoo def bilan kon kay wala sëfay joxé bop lan la mëna organiser Sénégal depuis 5 ans ni amuñ grève parce que amuñ benn kàddu ministre bi tontu la bëgg dem né transport amatul kilifa bu waxé lool c'est parce que amatul ku jiite syndicat yi parce que euh, am na ko nekkoon synthèse FC lu ko fa jëlé ñàkk mën def assemblée générale ak bilan daw rejoindre fële keneen nga xam ne moo fa nekk mun a def bilan bu positif boo xam ne mën nañu ko yóbbuwaat élection wala ñu joxaat ko beneen mandat moi je suis candidat ñu ngi commission de conflit depuis deux ans ñu ngi dugg suñu troisième année dama ne dëkk bi dañu passé kenn koo xam ne da ngay toog wax pour sa propre intérêt pour di wax propre intérêt sénégalais ñun dañu nekk ay ndaw di dund ci transport yaakaar a jël relève bi passé ko ñu parce que ñoom ñi ko joxoon flam boobu tey fi mu nekk nii neewtuñ fi ñii mag lañ ñi jóge nañ fi mais nag ñun dañ ko war a passé suñuy doom suba donc loolu dafa baax ñu ànd ak état bi gunge askan bi parce que lii feebar la nattu la bu ñëw ci ñun ñuy sant nag ministre de transport parce que nee na moom waxatul ak syndicat yi day waxtaan ak acteur direct yi nga xam tamit ñoom ñoo ëmb transport ñu mun ko wax lan mooy seen jafe-jafe mu dimbal leen seenu làmmiñ rek ñu nekk fii tëltëli mais buñ ko amanoon day taxaw ku dem ba ministre bi démissionnel parce que da ngaa nangam nangam ñoom ñoo war ñoom fi mu ne ñoom ñoo war rendre seen taw bu ñu amoon légitimité maanaam bu ñu leen déggaloon du ñu wut ay ay mercenaires ñu dugg àll bi di sa toj oto yi pour oto yi taxaw góor xuma Alassane lu tax ñuy toj oto yi boo dégg bu la déggee ne damay gërëw kay dama war jor sànni ñu la déggal dañuy dem xëy taxaw boo demee bay for ay xeer naa Dakar la oto yi toj oto jàmbur yi léegi nag man foofa man état laay interpellé ci loolu parce que kenn koo ne am nga droit dem grève soo jaaree ci yoon wi am nga droit dem grève mais nun am na am nga droit dem grève mais ñun am na droit dem liggéey rànk bañ a grève lan moo tax ñu waa nga geraw ni imposé nu na geraw pour yow loolu état laa ci interpellé mu jël ay responsabilité parce que nag ñu yàq alali jàmbur yi te du mujj fenn jaaduwul gera xeexetu eh, maanaam meretu ba mere Tiwaawoon mere Dakar gi dem Tiwaawoon toj ko dem Touba toj ko loolu moo indi événement bi ëmmat bi nga dégg si bër gi démb transport ci ko indi dama dégg sànq ñu eh, ñu songu média bi DTV ah, mu munul nekk dama wax ni coow li coow li coow li si ñun syndicat transport routier yi plus particulièrement Alassane Ndoye góor xuma ñëw yëngal Sénégal waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bi Serigne Touba euh, waxee li mu wax démb ndax nee na moom fii fi Touba feneen ci Sénégal sax nangootu ko waxuma fii ci Touba bu fi amatee dina ko digaale ak ñoom bu mu jeex nag ko fi am kër sax dina toj kër génn la Touba